kenn mosu ko gis mu wax nit luñ ko war ta wax mosu koo def nit te bu waxee it nga xam gars yi parfois dañuy wax naan mbër yi dof lañu mbër du dof technique bi mbër di utiliser pour daan moromam dof du ko def en village xam nga kon tey taxawaayam ci làmb kenn ku ci nekk bëggoon naa am seen dëkk ku mel ni kii may woo ci technique dañoo taxaw mbari ci jamono yooyu ñetti mbër yi dàqoon a bëree ci Sénégal jamono yooyu ñu taxaw ku mel ni Papis général général ku mel ni Augustin Mbagnick Sène ku mel ni Alioune Faye Pakala jamono yooyu bokk nañ ci ba ñetti mbër yi yoo xam ne nii mënoo te ñetti mbër ci senegal te tuddoo ñoom ñëpp kenn ku nekk jël kàddu ne kii may woote ñoom d'accord nañ ne Sénégal mooy mbër mi dàq bëre ci Sénégal jël drapeau président Macky Sall ay yoon yoon

le grand champion de Flouna Silamou Le patron de son Production Qui le grand promoteur wax la ko léegi nee na boo gisee mu bëgg a làmb waaw bilaay wallaay cey lu mu deful Joal amul merci beaucoup euh, ki nga xamna nak mom moom moo koy décoré c'est le président bu axlu làmb muy monsieur non Euh Jordan Malick Koutal ñibbi na ah mu ngi nii <laughs> Malick Koutal ci CRG bu Thiès la bokk bu Kaolack bu Birasène et puis mooy xalif général bu mbëri ah, ñetti jabar bëriwul ah trois gars Oui, c'est le général des lutteurs. 3, 2, bi mooy 100 pour 100 Mbour barki démb la ñu organisé Sowru Ba rëy Mbour. Lamine voilà yan kàddu nga ci bëgg a sànni. assalamualaikum yéen mbolo mi tok fi yeb maa ngi leen nuyu kenn ku nek sa tour ak sa sante di nuyu suma president Baye Fall Gandiaye maa koy nuyu lu beure beure beure waaw suma president Baye Fall Gandiaye maa ngi lay nuyu lu bëri waaw euh di gërëm nak képp ku fi tok tay dama kontaan ba munuma wax lu bëri parce que li yag na ko bëgg te munuma ñew diko wajj di fomu di wajj fomu ba ren Baye Fall ne ma bo ñewut na la retirer ci groupe bi loolu moo tax ma jógee Kaolack ñëw Baye gërëm naa la sant naa la acca ah, di jox Jordan kaddu gi. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku fi teew mi fi teew ñëpp maa ngi nuyu kenn ku si ne sa tur ak sa sant. waaw di rafetlu initiative bi di gërëm Alpha ak Grand Ambulance. lii yaakaar naa. ku ni neexul rek dang sey bëgg bok gaay boole wuñ la ci ma ngi leen di sant nak di leen gëreum di gëreum suma jarba na koy faal di gëreum aussi suma fils la ciow bi ngay wax legi dina si ñëw tuuti si moom parce que ben jour ak lu dañ ma dalal may def émission ak ñoom may vocal yi bari sama téléphone sama téléphone dem ba yag atanatul vocal yi sama téléphone fay mu ni ma père oo ma si suuf ni ma père lu fay sa téléphone ma ne ko suma téléphone bi mémoire bi liy wàcc si vocal attanatu ko mu ni ma suba suba suba dinaa la yónnee téléphone bu bees tax téléphone bi Espagne la jógee def direct si ma yaakaar naa su ma juumul moins tuutee ko moins cent soixante giga lu ma neex laa si def kon maa ngi koy nuyu bu baax suma doom jooju bu loolu paasee àdduna dafa am lu ñuy wax ci mbër yi loolu ambulance yow bokkoo ci sama mag nga suma gannaaw bu baax nga mais suma rakk yi nga xam ñoo toog ñoom laa koy dénk dafa bëri nit ñoo xam dañuy wax ni mbër amul kóllëre wala mbër day wor te baat boobu dafa ma naqari xam nga nag man noonu laa mel je suis naturel ma bëgg suma rakk yi sama ginnaaw ngeen sàmm baat boobu képp ku ngeen àndal débuté seen carrière ngeen fonk ko teg ko fu ko kenn tegul seen waajur yi aussi ngeen fonk leen bu baax parce que sama tur fu mu mënti egg fu mu mënti egg sama ñaari waajur ci lañ bokk parce que nit musul man yeboo ma bokk ak Omar jaw lépp fuñ ma joxé avance lamb muy ma gagné lamb wala ñu jox ma combat bala ma say may mbindef 100 francs dina ko yobbu ba suma yaay ak suma papa ni leen ñu def leen lu leen neex ma door jox ku ma jox lool moom suma rak yi sama ginaaw denk na leen ko bu baax Omar da nga wax sank nga ni c'est le xalifa général communauté am ko ni sank borom ñett jabar ci ginaaw lay tok mu bu ko wax ni ko jabar yaqul man bi may am jabar dugguma ci laam à l'âge de 18 ans la marié sama doom bu taxawoon fi tay amna su mbeur yo yoo xam ñu ngi fii maguñu ko mais dama am hygiène de vie damay entraîner normal damay tëdd heure damay lek lu bax tek ci jabar yaqul mbeur du deug jabar yaqul mbeur man yaakar na ni ambulance man na sédé lol limay wax mais da nga gis li gëna bon ci mbeur moy mbeur buy doxaan moytu leen loolu man non je suis naturel man lu may wax dama koy wax direct yéen su may rakk laa am su ma sañoon comme ni ko Omar waxee làmb yéen ay dem ba téye ko parce que il faut tamit làmb dafa métti sport individuel par force nga garder sa bopp fiir ci sa bopp pour nga mën a doon dara parce que làmb dafa métti amul jàppal ma fii football mën ngaa paas Omar Diaw dem taxaw ne mais làmb booy bàyyi ñu lay daal. boy bàyyi ñu lay daal ma bëgg na ngeen gor gor lu su lolu bu baaxa baaxa baax di sante may Maysa ndjay di sante ñi fi teew yeb décoration bi nak amul fu mu sedd fu fu sedd xol yam rek fofu la man fofu la tambalé di leen ñaanal yalla bu déwénee li ngeen man yalla na ngeen man lu ko upp tek teg li ma gën a ma yok ko ci moy sun production ma ngi lay ziar di la nuyu bu baax parce que maa ngi dégg say activité beneen bi si topp ambulance laa koy dénk ak alfali lieu bii ngeen nekk tey d'accord baax na trop mais bu ëllëgee su ngeen koy defaat bëgg naa see participer ak suma doole ak lépp lu mu am ci kàttanu yàlla barke sëñ Fall jaar naa ñëpp jaar nañu